inni uhiisuha bika wa surriyataha min asheytaani rajim rabbi axoosu bika min xamasaati sayaatin wa axoosu bika rabbi an yaxduruun bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin il makiin mbokki jullit mbokki taalibe yi mbokki biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu nuyoo lislaam ba gën a sell di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñi teew ci jataay bi yépp di nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi di nuyu mag ñi ak ndaw ñi di jiital ci sunu nuyoo ak sunu siyaara sunu gan bu sell gu màgg gi ñëw ci dëkk bi muy sëriñ Muntaxa Basiiru xalifatul xaal bi tarixatil muridiya ñëw gane si waa Ndakaaru kon ñu ngi koy jiital ci nuyoo bi di ko jiital ci siyaar bi di ko wax Mbàkke dalal ak jàmm di ko ñaaral su borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér noonu la nuyoo xalifa général yi nekk ci senegal yépp ak kilifa diine yi nekk ci réew mi di nuyu kilifa aada yi di nuyu sunu kilifa gii nga xam ne moo teew si ci jataay bi muy imam Makhtar Gueye di kilifa ci kuréelu Jamra euh, may yëkkati sama kàddu di ko yëkkati ci turu association ànd taxawu sa doomu réew yàlla def ñu jël kilifteef gi teg ko ci sama loxo jiital ma ci bopp kuréel bi may président bi bon maa ngi yëkkati sama kàddu ci turu kuréel bi yépp di yóbbaale ñi fi teew di yóbbaale ñi ñëwut ndax kuréel bi yaatu na ñu ngi amal tey suñu première sortie muy suñu première conférence de presse pour yëgal mbokki biir réew mi ak bitim réew ne am na kuréel bu taxaw ci biir réew mi ñu koy tudde association ànd taxawu sa doomu réew kuréel bi nag li ko tax a jug mooy ku nekk gis na jafe-jafe yi ci biir réew mi ku nekk gis na gàllankoor yi ci biir réew ku nekk gis na tolof-tolof yi réew mi di jànkonteel loolu moo tax ay kilifa ay boroomi xam-xam ay kilifa diine ak i kilifa aada daje am xalaatu ñu andi ci lii xew solution tax ñoom ñëpp ñu daje taxawal benn kuréel tudde ko association ànd taxawu sa doomu réew ñu bëgg kaa indi pour indi ay solution ci jafe-jafe yi réew mi di jànkonteel waaye ñu bëgg mu doon kuréel boo xam ne day ame taxawaay ci jafe-jafe yi réew mi amee pour ay solution am ci loolu mooy seen objectif bi ñu ko taxawalee nag association bi ñu ngi ko créer le 31 août 2021 waaye ñu ngi jot suñ récépissé ci la 8 3e mois deux 2022 muy le 8 mars bii jàll nga xam ne association bi am na récépissé moo nekk nii récépissé association bi moo nekk nii bi ñu ko taxawalee jaar nañ fi ñu war a jaar yi fépp dem fi ñu war a dem yépp ba yàlla dogal ñu jox ñu suñu récépissé le 8 mars bii jàll la ma ministère de l'intérieur boole gouverneur bu Dakar mu jox ma récépissé association bi kon yoonal nañ ko jaar nañ fi war a jaar yépp ba am li ñu war a am pour am ndigalul taxawal mbir mi waaye am ndigalul suñu xalaat yooyu ñu ñoŋal ko récépissé moo nekk nii association bi nag ku nekk xam na ne réew mii di Sénégal bari na jafe-jafe yi ci yi fi nekk bari na gàllankoor yu am ci biir réew mi bari na ay difficultés yoo xam ne mu ngi ci biir askan wi nekk ci biir population bi dinaa ci jukki ay poñ yoo xam ne fi mu toll nii mooy point essentiel yi nga xam ne ci la association bi war a njëkk a commencé ay activités bu ci nekk nag bu ci nekk jataay bi attanu ko waaye bu ci nekk dinañ ci dugg. laal ko rek jàll pour askan wi xam ne yii jafe-jafe ak yii gàllankoor association ànd taxawu sa doomu réew pare na ngir trouver ci ay solution lii lañu bëgg mu leer bi ci jiitu mooy ku nekk xam na ne jafe-jafe yi agsi na ci mbay yi maanaam mbay jafe-jafe yi nekk si mbay mi association ànd taxawu sa doomu réew amee na ci ab taxawaay bu mu ci war a amee waaye amee na ci ay xalaat jafe-jafe yi nekk si napp gi ku nekk gis na ko association ànd taxawu sa doomu réew amee na ci ay xalaat te pare na ngir liggéey jafe-jafe yi nekk ci suuf yi ci àll bi mooy dëkkuwaay yu sori yi xam ñu ngi ci biir réew mi association ànd taxawu sa doomu réew xam na ko te pare na ngir liggéey ci xëyum ndaw doomu réew mi mooy xëyum ndaw doomu réew mi association ànd taxawu sa doomu réew xam na ko ti pare na ngir liggéey ci jafe-jafe yi nekk ci sàmm gi mooy sàmm yi ci àll bi ku nekk xam na ne ñoom tamit am nañuy jafe association ànd taxawu sa doomu réew pare na ngir liggéey ci jafe-jafe yi nekk ci santé bi mooy paj mi association ànd taxawu sa doomu réew pare na ngir liggéey ci jafe-jafe yi nekk ci insécurité bi ci dëkk bi ku nekk gis na ko association ànd taxawu sa doomu réew pare na ngir liggéey si jafe-jafe yi nekk si doomi réew mi te ñu nekk ci bitim réew ku nekk xam na ko loolu itam association ànd taxawu sa doomu réew amee na ci ay xalaat pare na ngir liggéey si doomu senegal yi nuy faral di rey bitim réew ñooñu association ànd taxawu sa doomu réew yëpp na jafe-jafe yi te xam na ko te pare na ngir liggéey ci jafe-jafe yi nekk si sunu soldaar yi mooy ñi nga xam ne ñoo yor suñu sécurité di nekk ci sunu àll yi ñii nekk ci biir réew mi association ànd taxawu sa doomu réew xam na ko te pare na ngir liggéey si jafe-jafe yi nekk si langue politique bi loolu ku nekk ci ñun gis na ko ak li muy faral di jur ci réew mi loolu ànd taxawu sa doomu réew yëg na ko te pare na ngir liggéey jafe-jafe yi nekk si dongo daara yi mooy ñu nekk ci daara alxuraan yi di jàng ci diggante dongo daara yi ak sëriñu daara yi ak bërëb yi nekk mooy daara yi alxuraan yi seen jafe-jafe yi association ànd taxaw sa doomu réew am na lu mu ci xam te pare na ngir liggéey si jafe yi nekk si école yi diggante professeurs yi ak enseignants yi ak élèves yi association ànd taxaw sa doomu réew yëg na ko te xam na ko te pare na ngir liggéey si fi may daane la mooy ku nekk xam na ne nawet baa ngi dugg si te bu ñu nee nawet bi am na lu mu baaxoo ñu koy gis muy ànd ak moom loolu yëpp association ànd taxaw sa doomu réew. maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ndaw di jiital ci nuyoo bi imam Makhtar suñu papa nuyu naa la ziar la naan la dalal jàmm kër gi sa kër la maa ngi nuyu. ñu ma bokkal bureau yëpp président vice président ak membre bureau bi yëpp maa ngi leen di nuyu sama secretaire général sama secrétaire ñoom ñëpp nuyu naa leen di nuyu jigéen ñi nga xam ni dañu disponible pour man saa yu ma leen déplacé rek dañuy jóg. nan nag man nag li ma ci bëgg a wax mooy ànd taxawu sa doomu réew yegsi na ci biir réew mi ak bitim réew. nañu leen ko bàyyi xel bu baax fas nañ fi yéenee def loo xam ni du ma ni kenn defu ko waaye dinañ bokk ci mar ñi ñi nga xam ne dañuy marqué seen empreinte man nag jigéen ñi laay waxal ma di leen xamal ni bis ni ko tey ànd taxawu sa doomu réew egsi na seeni rankoñ fer na incha allah bi dina leen jàppale ci lu dina leen jàppale ci social dinañ leen jàppale ci ay formation dinañ leen jàppale ci injustice bi dina leen jàppale aussi tamit ci éducation bi parce que ku ni jigéen ni éducation ku ni jigéen ni formation ku ni jigéen ni financement ku ni jigéen aussi ni daal sa doole ndax kat suñu góor ñi dañoo làng ak ñoom léegi foo wàññi ñaari góor wañ wàññi fa benn jigéen te noonu la mu sa demee nag ca ñoom maam ba tey suñu bàyyi suñu loxo comme suñu bàyyi suñu loxo nag ba yàlla dogal suñu góor ñi ñuy kattanal ah nañu góorgóorlu bu baax. ñu xam ne ànd taxaw sa doomu réew ñépp la fi nekkal muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen muy ñépp ñun ànd taxaw sa doomu réew ñun la fi nekkal te dañu fas yéene def liggéey bu mëcc ayib boo xamante ni suñu toogaatee fii di conférence di woo presse bi incha allahu bi su boobaa presse bi dina xam ne def nañ fi jéego incha allahu rabbi maa ngi seen ginnaaw bu leen ma ñooru benn côté bu leen am benn distance ak man ku ma ci soxla nag moo problème boo am naa ko yëg luñ ci war a def dinañ ko ci def ci kàttanu yàlla ñu takku nag ndax jigéen mooy jàppale góor jigéen mooy jàppale góor nañ leen takk gën a takku suñuy sër sax laay wax jàppale suñu góor ñi defar suñu réew. mu faram-fàccee euh, leeral na yoon bi yëpp parce que déjà dès le départ tour association bi rek àtte na boppam ànd taxaw. sa doomu réew loolu kay bàyyiwul kenn baykat baa ngi ci biir sàmmkat bi nappkat bi fonctionnaire bi syndicaliste bi euh, tout tànk yi nekk ci euh, école yi ñu nekk tam ci daara yu digg dóomu yi ak daara kawe yi bàyyiwul kenn moo tax euh, yàlla def na ndimbal lu rëy bi ngeen fabe tur boobu ça veut dire que yéen parparloowu leen beddiwu leen kenn mm. boo nee doomi réew mi rek ñëpp ngi ci biir wax nga ne tamit euh, seeni combat jukki ngeen ci yi askan wi gën a def itte temps yi euh, junj nga lu mel ni insécurité bi xam nga bërka dem ba rek nekkoon euh, Pikine Nord def délégation Jamra mu profité sax wax ne que maa ngi ànd ak Biram Traoré moom mooy président cellule Jamra bu commune de Koungheul Koungheul foofu dans la région de Kaffrine ak tamit El Hadj Mbaye Guèye moom moo toogal Jamra fële ca commune Dakar Plateau alors maa ngi fii ci Pikine Nord doon jaale mbokku soxna Kiné Gaye bi nga xam ne wax dëgg yàlla demul dikkul toog ca place su liggéeykaayam lan moo ëpp sécurité loolu fa lañ ko fekk def ko lu ñaaw a ñaaw Euh, kenn mënul lim insécurité yi ba mu jeex xëy na ci gën a fës rek mooy soxna su baax si nga xam ne ci membre Jamra yi la bokk di Fatoumata Makhtar Ndiaye vice présidente conseil économique social moom itam fa mu nekkoon dara gën ko ëpp sécurité si sa biir kër ci sa biir néeg ci sa chambre à coucher fa lañ ko fekk def ko lañ koy def euh, Binta Camara 2019 mm-hmm. euh, fii ci Tambacounda moom tamit euh, siifkat bi donte la mu bëggoon amu ko waaye xeex na ba ñàkk ci bakkanam waaw sowe na dignité te saay-saay bi amul lu mu bëgg waaye tam bakkanam dem na moom tam ci biir kër bàyyam lañ ko fekk def ko loolu mu koy def parce que bu njëkk ba ci wàllu insécurité euh, mooy loolu suñu way jur yi daan tuddee eh, gaaw leen ñibbi si de balaa addu kalbe yee jóg àddugal ko ñu leen tuddee woon mm-hmm. bu ñu ñëwee yore paaka mën a menacé la nga joxe sa kalpe dañu naan bàyyi nga dem mm-hmm. mais léegi dañuy jël sa kalpe faat sa bakkan bu fekkoon nit ki da ngay jël alalam bàyyi ko bakkan bi sax ñu mën a wax mais jël alalam faat ko bu doon da nga koy violé bàyyi ko mu dem ñu mën a wax mais da nga koy violé rey ko voilà kon nag euh, président Baye Cheikh état mënul régler lépp mm-hmm. Macky la ko gën a xam te wóor na ma ne bu yëgee initiative bii ngeen jël dana ci kontaan ndax yëgoon nga ne daf ma recevoir le lundi 9 bii ci musiba Dubaay bi amoon. ma demoon ñu doon ci waxtaan pour seet ni ñu mën a soowee ñu fa takk. di suñu jaay. ma kontaan su ma nee sama nijaay la te sama yaay bi nga sant moo tax ma nekk sama nijaay di moom tamit ñëpp di ñëwaat rek ci li suñu président président bi wax damay résumé rek parce que moom wax na lépp waaw parce que ku nekk gis nga jafe-jafe yi jigéen ñi di jànkuwanteel que ce soit dans les maisons dans les lieux de travail et cetera damay résumé tënk ko. 80% à tuuti ma leen di fàttali ne la ku nekk gis nga te xam nga tamit li jigéen ñi ñu daj que ce soit dans l'insécurité l'insécurité que ce soit dans l'harcèlement et cetera parce que les femmes souffrent les femmes sont violées les femmes sont harcelées les femmes sont maltraitées te loolu tax taxaw nañ ko. xeex ko ni ñu koy xeexee mooy xool ban solution la ñu jël pour ka nga xamante ne jigéen la nekk ci kër wala nga nekk ci sa lieu de ndax dañuy gis jigéen xëy liggéey ñu doraale ko faat ko te léegi taxu koo jóg lu dul njaboot dañuy gis jigéen nekk ci kër ñu koy maltraité ba mu ñàkk ba kanam